أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi ànd ak yéen ci téere bi di bulugh al maram bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey xadiis 48e ci sama téere mooy xadisu zeyd abdullahi ibnu zeyd mu ne wa anhu annahu raa nabiy sal nabiya sal allahu alayhi wa sallam yaaxuzu li uznayhi ma an غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه باللفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ حديث بي ني جانغ تاي موي حديث عبد الله ابن زيد مون نوي جانغال ميروم مسا بوب مسا bopp bopp ñaata yoon lañ koy masa ndax masa bopp wala masa nopp ndax nopp ak bopp ñoo ànd wala dañuy masa bopp côté masa nopp côté hadis bi loolu la ñuy jàngal tey mbokk yi mu ne wa anhu day bañ a répété waat tur Abdullahi ibnu Zeyd moom lay bañ a répété waat moo tax mu ne wa anhu waaye kenn ki la Abdullahi ibnu Zeyd bi mu la jàngaloon ci 47e hadis turam la lay bañ a indilaat moo tax mu ne la ci 48e bi mu ne la wa anhu jëlee nañ ci Abdullahi ibnu Zeyd ba tey. mu ne annahu li wóor tey mbir moom abdullahi ibnu zeyd raa gis na annabi sallallahu alayhi wa sallam gis na yonent bi yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko yaxuzu li uznayhi muy jëlal ñaari noppam yi ma àndox naa masaana bopp ba pare mu gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëlaat beneen ndox bu bokkul ak bi mu masaawee bopp na xayra ma illazi axazahu li raasihi bi mu masaa bopp ba pare dafay jëlaat beneen ndox mu bees ci ay loxoom pour masaawee ko ñaari nopp yi nee na hadis boobu Bayhaqi moo ko génnee nee na hadis boobu moom moo nekk ci muslim ci baat yi min haza lafz bi ci baat yi nee na am na bu mu ñëw mu ne wa masaha bi rasihi bi ma in gayri fadli yadayhi beneen riwaaya bi dafa ne gis na yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu masaawee ñaari noppam lu bokkul ak ndox mi mu masaawee bopp bi kon sunu problème mooy am na ñu wax ne masa bopp ak nopp ñooy ànd waaye lu ñu bëgg a xamle mooy gis ngeen diine ji ku jàngul bokkoo diine ji ku jàngul bokkoo waaw foog ñu jàng beneen bi lii moo leen di wan nay bàyyi lu ñu yonent bi dara saxaaba yi bàyyi lu ñu yonent bi dara lépp lañ ko topp di xool ni mu koy defee moo tax dara rawu leen ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam contrôlé bu contrôlé yonent ndeke bu masaawee bopp nan lay masaawee nopp kon jàng bu ñuy jàng tey ci sunu dars bi mooy masaawe nopp nan la ñuy masaawe nopp mu ne ci hadisu abdallah ibnu zeyd bi wax leen ak séeréer yooyu mu ne bu ñuy masaa nopp li gën a bari mooy dañuy jël baaraamu joxoñ bi bi ngeen di joxoñee bu ngeen di taayal mu ne mu daal di koy dugal ci biir nopp bi mu jël baaraam bu màgg bi mooy ibham bi mu tourné ko nopp bi ci ginnaaw ne noonu la ñuy masaaye nopp dugalal sa baaraamul joxoñ bi ci biir nopp yi na bu mag bi wër ci ginnaaw ak ci kanam gis nga noonu la ñuy masaaye nopp ci biir ak ci biti mu ne ci mbirum nopp Abdullah ibnu Zeyd mu nuy jàngal ak di nu fàttali ci topp gi mu topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam di xeeñ ci njubam moom Abdallah mu ne mu ngi xamal ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam axasa ma an jadidan dafa jël ndox mu bees li masi usnayhi pour masa noppam yi mu ne xayra ma illesi masa bihi raasahu ndox mu bokk nag ndox mi mu masaawee bopp bi kon léegi lan ngay dégg foofu mooy ñaata ndox la ñaari ndox waaye da ngeen dégg lu baax de dañuy jàng mu ne boroom xam-xam yi yal nañu yàlla fayal wa hada yabxas alfuqaha fi xadisayni xadis yi ñaari xadis yi bi ne bopp ak nopp benn yoon lan leen war a masa ak bi wax ne dañoo masa bopp ba pare masa nopp kon dafa mel ne ñaari xadis la bi mu nekkee ñaari xadis encore lan la ñuy dégg mooy dafa mel ne ñaari xadis yi am na am na am na na wuute ndax benn bi dane dafa masaa bopp boole koog nopp beneen bi ne dafa masaa bopp ba pare doo ko masaawaat nopp te nag ñaar ñi lañ bëgg a lënkale pour xamal nit ñi ne wuute amu ci bu ci nekk boroom xam-xam yi indi nañ ci àtte mu ne wala hadisul awwal yash'aru bi annahu masaha al uznayni bi maa'i bi ma in masaha arasa xadis bu njëkk bi mooy dafa wane ne masaana bopp ak nopp ci benn ndox masaana bopp ak nopp ci benn ndox moom mooy xadis bu njëkk bi ñaareelu xadis bi dañu ne masaana bopp ba pare mu daal di jëlaat ndox daal di masa nopp yi mooy xadis Abdullah ibnu Zeyd bi ñuy jël tey na borom xam-xam ñu ne yajmauna al xadisayni dañu dajale ñaari xadis yi fa yaquluna borom xam-xam yi ñu ne amul différence fa in kaana al ma waafir fi yadayhi inda masi raas fa innahu yamsahu l uznayni bi wafrati ma i raas su fekkee bi nga war a masaawee sa bopp da ngaa jël ci ndox lu doy pour masaawee sa bopp ndox moomu nga jël jël ko muy ndox mu doy ci say loxo bi nga ko tooyalee ba pare pour masaawee ko sa kawar gi sa bopp bi ndox moomu bu doyee mën nga ci masaawee nopp yi mu nekk benn loolu mooy wax ci njëkk ci su fekkee ndox mi nga jël pour masaa bopp bi doyul kon mën ngaa jëlaat ndox pour masa pour masa nopp yi loolu lañ wax ñu ne wa in kaana al ma laysa waafiran bu fekkee ndox mi doyul inda masi raas bi ngay masa bopp wa zanna an al mas ala raas istanfadal ma mu jàpp ne ndox mi mu masaayoo bopp bi mun cee masa nopp su boobaa mën na tooyalaat ay baaraamam daa di masa ay noppam loolu la borom xam-xam yi wax waaye na beneen atte bu lay wan ne nopp ak bopp ñoo bokk àtt nopp ak bopp ñoo bokk àtte benn ndox lañ leen war a masaawee ina masul usnayni bi maa i ras masul usnayni ma masul usnayni ma ar ras bi maa in waahid masaawe bopp ak nopp ci benn ndox ñu ne loolu mooy mazhabu xanafiya ñaata ngir ñoo am wala yi siiw yi ngeen gën a xam ñaata ngir la ñeent kan moo ci njëkk abu xanafi abu xanifa ñoom nee nañ waa ngir moomu nee nañ bopp ak nopp benn ndox lañ koy masaawee kon soo tooyalee sa loxo masaa sa bopp ba pare bul dugalaat loxo yi ci biir ndox mi ndox moomu nga masaayoo bopp loxo yooyu moom ngay dugalaat ci nopp bi masaa ko nee nañ am nañ ci riwaaya boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci imaam ahmad ñee na wax jooju mooy waxu sawri mooy waxu boroom xam-xam bu tudd sawri wa riwaaya an jamaa min as-salaf am nañ ci aussi ay textes yu bëree bëri yu ñëw yu jóge ci salaf yi mooy ñi jiitu mag ña boroom xam-xam ya mu ne waxtaarahu ibnu taymiya ibnu taymiya loolu la tànn wa ibnul qayyim ibnul qayyim ci boppam loolu la tànn te gis ngeen ñaar ñooñu bokk nañ ci géeju xeet bi ñooñu lu ñu tànn daanaka souvent boroom xam-xam yi dootuñ ci discuter wa sanaani imaamu sanaani loolu la tànn ñii ma leen di wax ñëpp seeni tur mooy ñoom li ñu tànn mooy li ñu tànn mooy bopp ak nopp mën nañ ko masaawee benn ndox wabnul baaz bun baaz rahimahullah yoon woowu la tànn wa cheikh albani ak al muhaddis al imam albani moom tamit loolu la tànn wa ibnu usaymin kooku tamit loolu la tànn seen seen tegtal adilla mooy awalan min as sunna xadisu ibnu abbas ibnu abbas nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ala uxbirukum bi wudu'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa fiihi summa garafa garfatan fa masaha biha ra'sahu wa uznayhi ibnu abbas kenn la ci fóore xeet wi ci magu sahaaba yi moom bi muy jàngal sahaaba yi naka la yonent bi doon jàppee moom ibnu abbas bi muy jàngal sahaaba yi ni yonent bi doon jàppee daf leen nettali ne yonent bi muy jàpp ba egg ci bopp ndox mi mu masaawe bopp moom la masaawe nopp ndox mi mu masaawe bopp moom la masaawe nopp nda boobu mooy premier dalil ñaareel anna jami man wasafa wudu'ahu sallallahu alayhi wa sallam lam yazkuru annahu axaza ma'an jadidan lil uznayni léeg-léeg bu ñuy jàng téere yi danañ fekk saxaaba yi mag yi àndoon ak yonent bi bi ñuy jàngale jàpp wala ñuy jàngale julli wala ñuy jàngale lenn ci jaamu yàlla bu yonent doon def ñoom ñooñu bu ñu koy jàngale yenn saa yi dañ ciy wax ñoo xam ne ñu mujj ñi duñ ko wax mbooleem ñi ñëw ci mag ñi di jàngale yonent bi ni mu doon jàppee ñoom dañu ne yonent bi bi mu masaawee bopp dafa masaa nopp jëlaatul ndox da ngeen ni wax noonu la amee ci jalsatul istirah saxaaba yu mag yi ko doon jàngale defuñ ci jalsatul istirah moo tax souvent ci sifatu salaatu nabi wala sifatu wudu nabi sallallahu alayhi wa sallam da ngay fekk mag ña mag ña àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lépp ñoo ko fekk ñoom dañuy wuuteeg ñu mujj ñi gendeeku yu ndaw ndawaan yi souvent yu mujj yi ñoo koy indi c'est parce que peut-être dañuy yaakaar ne noonu la fekk mooy li ñu waxoon sànq mën ngay jàpp nga jàpp ne li nga jël ci ndox doyul sa bopp nga jëlaat pour defar nopp yi pour nopp yi tooy ki ki mujj a gis loolu lu muy wax kii kat dafa masaa bopp deux fois wala dafa masaa nopp dafa masaa bopp ba pare masaa nopp fekk déedéet moo tax mu ne an na jami mbooleem man wasafa ñépp ñu ñëw di melal wudu ahu sallallahu alayhi wa sallam njàpp yonent bi lam yazkuru annahu axasa ma an jadid ñoom ñëpp waxuñu ci hadis yi ne yonent bi jël na ndox mu bees lil uznayni pour masaawaat nopp ñaareel bi min asaari saxaaba bu ñu demee ci jeexitalu saxaaba yi ndax ñoom tamit saxaaba yi dañoo bokk ci ñi jàngale diine ci abdullahi ibnu omar radiallahu anhu nee na al uznaani min al raas ñaari nopp ci bopp la bokk ñaari nopp ci bopp la bokk loolu tax yéen ñi yor ay doom yu jigéen yuy muuru wala ay soxna yuy muuru wala ay mbokk yu jigéen yu leen déggal di muuru na ngeen fexe ba muuraay bi xew léegi bu ñu ko muuru xam ngeen léegi benn muuraay dafa xew Sénégal mooy muuru génne say nopp te nopp warul feeñ ci awra yi la bokk al uznaani min arraasi yenent bi nee na ñaari nopp ci bopp la bokk kon ni ñu war a muure bopp noonu la ñu war a muure nopp mais xam nga seytaan seytaane nit ak jinni seytaane ñaar la dafa am seytaane nit ak seytaane jinni léeg-léeg seytaane nit ñi ne la sa jaaro yi moom lu taxoon nga tëgglu ko ak jaaro yi ni ñu seere fekk nit ñi duñ ko gis koy jarul nga koy defar lu ci mënoo koo génne rek yenn saa nga gis koo xam ne day góorgóorlu de dafa muuru muuru muuru ba dagg nopp yi dagg ko nii génne lii rek cat bu ndaw bi nga xam ne ci la jaaro bi di nekk daal di képp kaale bu mu du ngeen koy gis waxuma sax kii génne nopp bi complètement mais kii moom dafa bëgg nëbbaale nopp yi mais problème am mooy jaaro yi na ko nit ñi gis pour xam ne jaaro yi moom griffe la quoi loolu musiba la jaamu yàlla waaw sëriñ bi nee na dafa am muuraay sañse ak muuraay jaamu yàlla waaye muuraay moom benn façon rek la war a nekk mooy jaamu yàllaa ko tax a jóg muuraay sañse taxu koo jóg bi ko nit ñi dafay sañse nag ci lañ sonn mooy booy muuru foog kaala gi nuroog dàll yi nuroog saag bi nuroog nangam nuroog rose à lèvres bi nuroog affaire yooyu ñuy diw ci bët ah problème ñëw na léegi dootul nekk ngir yàlla léegi day nekk ngir ñii ba pare liñ la tere woon léegi lool ngay def dañ la ne woon fexeel ba bu la kenn xool léegi yow solu nga solu boo xam ne foo romb may saa nga gis benn waaye bu kàccoore gis benn ibaadu waaye mooy waaye maa ngi ci ibaadu bi boo yow di nga ma tax a nekk ibaadu yow di ngeen koy dégg yow boo yow bu fekkee ne ibaadu yëpp ne yow la mel man dinaa dinaa solu ibaadu damay solu mais solu lu ñuy solu mel ne làbbe sa yaram day daw quoi inna parce que lu tax loolu waa ji wax loolu mooy ndaw si ni mu soloo la ak ni mu ko defee moo tax di attirer attention loolu baaxul ndeysaan diine dafa war a sell lillah dafa war a sell nga muuru muuraay boo xam ne ki lay gis da ki lay xool du gis ci yow loo xamante ne da koy taxaw muy saalit wala muy wax wala muy wax loolu du diine nañu xam ne ñaari nopp ci bopp la bokk dañ ko war a nëbb awra la warul feeñ jigéen liñ ko may ci kanamam pour mu feeñ ci yaramam pour mu feeñ mooy kanamam ak ay ténqam dem kanam gi sax gis nga gaa yaa ngi ci wax dégg ngeen Sénégal sax commencé nañ ci wax tey xaw ma démb mais est-ce que dañuy bàyyi gaa yi muur kanam di continuer wala dañ leen koy interdire waaw noonu yàlla dimbali diina yàlla ji moom ku repp rek nanga ko laal du nit ñi de yàlla moo yoral diineem ji boppam moo koy sàmmal boppam bépp nguur bu bëgg a daanu laalal diine yàlla ana firawna ana namrud ana abu jahlin ana ñeneen ñi fi jiitu woon doon xeex diine ji ana ñu ñoom ñëpp yàlla waddal na leen ba ci sunu nguuru nguur yu jege yi ñi ci jëloon projet di xeex diine yëpp yàlla waddal na leen waaw ala sharon kenn xamul dee na ak deewu day nëbb nañ fa feebaram ak deem ndax torox gu mu torox kon diine yàlla ji yàllaa koy sàmmal boppam yàlla xaarul ci nit ñi pour ñu sàmmal ko diineem pour ñu wattul ko ko bu doon nit ñi ñooy sàmm diine ji bu doon jullit ñooy sàmm diine ji diine ji fay na parce que jullit ñi taluñu sax seen bopp waxuma la ak di sàmm diine ji kon diine ji diine yàlla la waaw nguur gu am nguur gu nar a mucc nag mooy nguur goo xam ne ay seytaaneeg ay fii parab pagay waa waa ba jiiba duñ la dugal ba ngay attaqué yàlla muraay yàllaa ko moom alquran yàllaa ko moom diine ji yàllaa ko moom jàkka yi yàllaa ko moom waa nal masaajida inna diin inda allah islam kon ku nar a ku nar a texe mooy ku jàpp ci diine ji di ko jàppale waaye ne damay daaneel diine li yàlla wax du fi am ah baax na laaj leen ñi ko jéemoon fuñ mujje ñu ne woon lu yàlla du wax du fi am yëpp daanu nañu mbokk yi ñaari nopp ci bopp la bokk wajhu dalil al uznaani laysa uduwayni ñaari nopp duñu ay cër duñu ay membre mustaqillayni yoo xam ne dañoo am indépendance lisa loolu tax fa innahuma yumsahaani maa ras moo tax ñoom ñaar dañ leen di masa bu ñu masaawee bopp ba pare maratan waahid benn yoon aussi la ñuy masa noppan benn yoon waaye di nga gis sénégalais boo xam ne waxuma day masa bopp waaye day raxas bopp raxas nopp sénégalais yu bëri mënuñu jàpp d'accord ngeen ci loolu wala boo tegoon ndox tey nga ni kaa leen ñu jàpp da nga gis ku ñëw guux ndox bu mu nee bismillah rek li mu jokkee def mooy guux ndox ba pare nee na ngandal lu laxi nag naan nii di raxas loxo yi loolu bokk ci njàpp njàpp boo ne bismillah loo war a def ah boo ne bismillah fas yéene jàpp looy def raxas loxo yi mais imagine raxasoo loxo nga def raxasoo loxo nga def ndox ci loxo bi def si gémmiñ ba pare commencé raxas loxo kon yow lan nga njëkk a def gémmiñ ba pare loolu santé sax nanguwu ko ndax balaa ngay def dara ci sa loxo def gémmiñ nga raxasal loxo yi ba pare soo raxasee loxo ba pare lan moo ci tegu gémmiñ gémmiñ lan lañ koy raxase gars yi lan lañu raxase fii gémmiñ baaraam yi gaa yi jël baaraam naan nii ba mu set ñu ne ni benn benn defaat ni ñaar defaat ñett doog a ñëw bakkan ah du noonu fi lañu jàppe du noonu boo raxasee loxo ba pare liñ la wax mooy nga wut socc kon li gën mooy balaa ngay jàpp nga socc ba pare nga xam ne boo raxasee loxo yi rek boo ñëwee direct gémmiñ ak bakkan ngay boole benn benn ndox génne jëlaat dugal génne muy ñaar jëlaat dugal génne muy ñett bakkan ak gémmiñ ñooy ànd benn ndox bu ñuy dugg di génn xëy na commencement bi soo koy def dina difficile mais boo ko defee benn yoon ñaar ñett mu yomb kenn du raxas gémmiñ trois fois bakkan trois fois déedéet loolu wérut de bakkan ak gémmiñ ñooy ànd benn ñaar ñett dégg ngeen après luy tegu nga raxas kanam sëlmu ban côté ngay jiital booy raxas kanam ban côté ngay jiital ndeyjoor comme d'habitude même booy raxas gémmiñ gi ndeyjoor ngay jiital ah ba nga waxee bismillah ba nga waxee bismillah yéene dem na bépp jëf yéene baa ngay am ca tàmbali ba waaye yéene bi kenn du ko wax ci gémmiñ fan lañ koy fas kenn du toog li bàyyi def léegi bismillah maa ngi fas yéene jàpp tisbaar laa laay jàppal ñeenti ràkka laay julli lool lool lool kenn du ko def loolu day am ba ci sunu lixaam yi sax ak nodd ngay gis bilaal bu jël micro astaghfirullah min kulli zanbin in di di ñàngal nag inna allaha kaana gafuran rahiman jànguñu naxwu jànguñu naxwu ku nekk xam na kaana ak inna lu ñuy def yaay dañoo bëri wax rek kaana ak inna ay opposant lañ fu inna fekk kaana weddi ko fu kaana fekk inna dindi ko ba pare loolu noonu bokkul ci noonu bokkul ci li xam bokk ci kenn waru ko cee boole nodda ngi tàmbalee allahu akbar allahu akbar li xaama ngi tàmbalee allahu waaye astaghfirullah min kulli zanbin bokk ci di jàpp tamit guux ndox raxas gémmiñ trois fois bakkan trois fois bokkul ci njàpp sëlmu ñaata la ñetti yoon après nga jël loxo ndeyjoor ba ci conc yi ci biir ak ci biti ñaata yoon nga def ñett nga jël loxo càmmoñ ñett beneen bi mooy di raxas cër yi di am ñaan yooyu ñaan amul wérul xam ngeen am na am na ñoo xam ne bu ñuy commencé jàpp fi ñuy tàmbalee di raxas ba keroog ñuy jeexal tànk yi lu ñuy def am na ñaan bu ñuy wax bu ñuy raxas loxo ndeyjoor allahumma atini kitaabi bi yamini yow yàlla sama loxo sama këyit yàlla ma ko jox ëllëg loxo ndeyjoor bu ñu raxas loxo càmmoñ yow yàlla yàlla boo ma jox sama samay dossier sama loxo càmmoñ bu ñuy masaa bopp bopp kenn du ko raxas aussi dañ koy masaa ngay tool loxo yi teg ci tàmbali jëbi su fekkee da ngaa leel da ngay teg ñeenti baaraam yi fii ci jëbi nii lii mooy sa jë jë ñeenti baaraam kese la fi ñeenti baaraam yi yem ci jëbi fii nga tàmbalee massa ba ñëw ci sa ndong nga delluwaat wàcc ci nopp yi dugal baaraamu joxoñ bi ci biir massaawe baaraam bu mag bi ci ginnaaw bopp benn yoon lañ koy massa dem ak dikk benn yoon kenn du ko massaaw ñetti yoon kenn du ko raxas soo paree loolu am na ñoo xam ne bu ñuy masaa bopp dañu naan yow yàlla yàlla nga ma keral ars yowmal qiyaamati loolu bokk ci maanaam kenn du jàpp di ñaan dafa mel ne maa ngi dégg ay wax de maanaam suñu jàpp amul ñaan ngay jàpp ba jeexal foofu la ñaan bi nekk soo paree masaa nopp foo yëm nga raxas tàng ban tàng ngay jiital ndeyjoor ban baaraam ngay njëkke baaraam bu ndaw bi nga raxas tànk ñaata yoon lañ koy raxas ba fan ba ci dojoor yi xam nga gaa yoo xam dañuy dem ba ci uum bi nga raxas ñetti yoon nga dem càmmoñ ban baaraam ngay tàmbalee càmmoñ tànku càmmoñ ban baaraam ngay tàmbalee baaraam bu mag bi ñaata yoon nga koy raxas ñett yoon ba ci dojori moom tamit soo paree soo paree jàpp la yoo nga siggi nga siggi xool asamaan siggi am ñoo xam ne dañuy siggi yëkkati seen baaraam ni nii daal di jël ndox de loolu bokk ci jàpp loolu bokk ci de loolu bokk ci daal di seex ndox daal di sirit sir daal di ne mu mu mu daal di ne yooyu bokk ci soo paree daal dañu ne yëkkatil sa bopp sa bët tuuti xool asamaan ne lan ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni foofu la yem aussi bul continuer am na ñu ci yokk waj'alni loolu bokk ci loolu bokk ci yooyu lépp bokk ci allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahirin yeneen yoo ci yokk bokk ci ndax yonent bi yokk ko woon léeg-léeg benn waaye mu ne waaw yéen daal vraiment da ngeen a sonal nit ñi quoi yéen lu ñu wax ngeen ne bokk ci bokk ci bokk bokk ci xamu tax bokk ci su ku nekk ñëwee yokk ma ñëw yokk kii ñëw yokk kii ñëw yokk kee yokk ki ba jàkka ji nar a jeex ku nekk yokk fu njëm ne noonu li ma ci yokk baax na nan yokk dem rek xam nga fu muy mujj mooy li yonent bi indi woon la ñuy mujj bàyyi mooy comme li am tey loolu tax bu kenn yokk bu kenn wàññi li yonent bi indi dong dong doy na kenn mënu koo def ba mu jeex beneen bi mooy bu fekkee dañuy bëgg barke gémmiñu yonent bi ñaan bu mu ñaan ak man sama ñaan bi ma ñaan ban mopp barke ngeen defa ne gars yi daf leen laaj ah da ngeen di noppi da ngeen bëggoon ne sama ñaan moo gën a foor yaari yonent bi du ngeen wax ci kaw ah gémmiñu yonent bi ak gémmiñu keneen bopp barke gémmiñu yonent ak sunu gémmiñu papa gémmiñu yonent ak suñu gémmiñu maam gémmiñu yonent ak suñu gémmiñu sëriñ sallallahu alayhi wa sallam xam nga tax kooku gémmiñam moo am barke yàlla dafa kase ci làmmiñam kase xam ngeen kase soo duggee ci bureau yi loo fay fekk benn tampon ak benn bic bic bi lu ñu koy dee signature ñaar yooyu yëpp yàlla daf koo def ci làmmiñu yonent bi xam ngeen signature bi mooy lan mooy maa yantiqu anil hawa du wax lu ko neex xam ngeen lan mooy kase bi in huwa illa wahyun yuha lu mu wax maa ko wax kan moo am loolu am na Sénégal ku am loolu ku yàlla ne yow de doo wax lu la neex loo wax maa ko wax kan la ci Sénégal wax leen ma turam boo waxee ñu ne waa màkk gars yi day gars yi dañu bañ ko tudd màkk de waa màkk nag li ñoom yàlla moo leen ko may na ndeysaan waaw ngëneel gu rëy la est-ce que est-ce que soo waxee waa Màkka rek da ngaa bañ waa Sénégal déedéet ah boo waxee Pikine da ngaa bañ waa Géejawaay du loolu maanaam Màkka dëkk bu nuy jaamoo yàlla la waaye Géejawaay nag du dëkk bu nuy jaamoo yàlla kat dégg ngeen de wala fii dañ fi dañ fi ñëw pour jaamu yàlla géejawaay ban xeer lañ fii fóon si dañ koy raay si comme am nañ ko sax xam naa ne un jour viendra ñu wut benn xeer teg ko fi boo demee benn dëkk bu tudd Géro ci yoonu mbuur bi la nekk am na fa benn xeer xeeru sëñ bi la tudd xeer baa ngi foofu gars yi dañ koy ziare comme ni ñuy raaye kaaba gi boo waxee ñu ne xeeru sëñ bi la ñaari xeer la woon am dafa benn mbër bu fa sàcc benn xeer dem ak moom ci seen mbër yi di bëri fii moo sàcc xeer ba dem ak moom yàlla kon diine jaa ngi noonu diine ji dañ koy jàng diine ji bàyyiwuñ dara yonent bi bàyyiwul dara lépp la jàngal nit ñi képp koo xam ne jàngoo diine ji yow yaay nekk taxankat guddi yow la ñuy nax yow la ñuy nax soo bëggee am liberté nag soo bëggee xam da ngay jàng tey sa hadis bi ñu doon jàng Abdullah ibnu Zayd diñ ko jàngal hadis bi lan la wax. gis nga loolu lañ doon jàng pour nga xam yow nooy masaawee ba doo dugg ci biddaa ba doo yor pas-pasu sooy masaa nopp ak masaa bopp comme li xew Sénégal xam ngeen Sénégal noonu la ñuy jàppee dañuy masaa bopp ba pare dooga bañ ne ko sax boo fi wax kenn jàppal danaan nga ne ko nu ñuy jàppee danaan damay raxas sama loxo ñetti yoon sama gémmiñ ñetti yoon sama bakkan ñetti yoon ma sëlmu ñetti yoon loolu la la waa ji di wax wala loolu du jàpp wér xam nga loolu boo ko waxee ñu ne yii yéen ibaadu yi changé ngeen lépp yéen ngeen gis changé ko téere yi moo mag ibaadu yi hadis yi moo leen mag ñun fi leen fekk hadis yi wala hadis yi ñu fi fekk ah bal kay ñoom ñi doon firi hadis yi ñoo ko firilul nit ñi nu mu nekke ba nit ñi réer noonu la amee ci jaamu yàlla yëpp yoo xam ne yu ñu warul def ñu ko ciy def yoo xam ne waruñu ko def noonu la amee ci julli gi noonu la amee ci koor gi noonu la amee ci aj màkk noonu la amee ci lu nekk ci jaamu yàlla yi dafa am yu bëri yu ñu ci dugal bokku ci xoola bu ñu jullee ba pare ñaata façon ñaan ngeen di gis am ñoo xam ne ci basan gi la ñuy yem karaj karaj karaas karaas karaas di rëdd basan gi di signé ay veer ak ñii di oo ñii loolu ba loolu ban ñaan la na ngeen ñaan rëdd ko ci basan ban ñaan la yenn saa yi ku ñaan ba pare daan ne nii wul ba ci loxo def xanaa mooy ñaan bi bëgguma ko na dem ci ginnaaw loxo dafa am ñaanu biir loxo am ñaanu biti loxo ah bi mooy pour ñu dee ñi mooy na dem léegi bu dee wii nga def ko nii même bu dee ñaan sax boo war a ñaan nii boo paree amul diw ci kanam amul diw kanam amul def dënn amul nii da ngay ñaan bàyyi booy tëdd rek la ñaan diw am booy tëdd waaye da ngay ku nekk di xulli bët nag mel na ñaan gi moo koy jàpp fal force di ko indi maa yooyu yëpp bokkul ci diine diine ji buñ ko jàngul dañuy am problème mooy li ngay gis dangay gis ku ñaan wala même sax kurus gi kurus gi ne ko tuf tuf tuf ci kurus gi ba mu tooy daal di boxañ kurus gi sa kanam lu bokk ci waaw yu bëri du jeex du jeex noonu la amee ci njàpp noonu la amee ci julli noonu la amee ginnaaw julli noonu la amee ci ñaan yi noonu la amee ci lu ne loo xalaat loo xam ne bokk ci gaa yi di ko ci dugal waaye nag ñun bu nu bëggee rëcc mbokk yi suñu bëggee rëcc mooy nanu jàng suñu diine nanu ñëw nu nuy wax nuy dégg ñuy tiim ci texte yi di gis li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax saxaaba yi li tax ñu dund lu leer mooy dañoo nangoon jege yonent bi yonent bi di wax ñuy jàng di dégg loolu moo tax lépp lu ñu def dafa leer moo tax bàyyi lu ñu yonent bi dara lépp lañ ko topp lépp lañ ko topp tànk ak tànk su kii indi lii kii indi lii kii indi lii kii indi lii bu ñu indee lépp lu yonent bi def loolu ngay dégg yenn saa yi ñu ne sifatu salaatu nabi mandarga bi yonent bi jullee wala ñu ne la sifatu wudu nabi mandarga bi yonent bi jàppee wala sifatu xajju nabi mandarga bi yonent bi ajee maanaam lépp lan lay indil taxi lañ lay booleel mu bëri bay bëgg dee ñu daal la koy booleel yépp nga daal di koy jël su ko defee mu daal di nekk sa diine kon ci hadisu abdullah ibnu zeyd bi la ñu yem tey bi mu ñu jàngal na yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis na ko muy jàpp daal di masaawe ay noppam ci ndox moo xam ne masaawi ko woon bopp bi boroom xam-xam bi ñuy leeral hadis bi dañu ne su fekkente ne ndox mi nga jël ci sa loxo doyul nga masaaye ko bopp mën ngaa laalaat ndox ci sa loxo masaaye ko nopp waaye àtte bi li rëy te di dëgg te boroom xam-xam yépp ànd ci ijma mooy ndoxum bopp la ñuy masaawe nopp ndoxum bopp la ñuy masaawe nopp kenn du masaa bopp ba pare jëlaat ndox di masaa nopp loolu kenn du ko def lu dul koo xam ne lu dul koo xam ne ndox mi mu jëluloon moo doy moo doyul kon loolu mooy dar si tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am na ci ay laaj insha allah bismillah